li ñu wax di ko waxaat tey mooy poste bi Mati Gningue di occupé ce post là ne va pas être mooy bu fekkee son contrat ne va pas être keneen la ñuy teg place am te entreprise bi am na ci droit légalement donc le ko le poste qu'elle occupe jusqu'à présent kenn du ko supprimer kon la question mooy lan moo war a tax. après deux contrats à durée déterminée du ñu jox un contrat à durée indéterminée ki nga xam ne mooy suñu sœur suñu jigéen Mati Niang lan moo war a tax mooy xëy na liggéeyam son travail n'est pas satisfaisant maanaam liggéeyam du liggéey boo xam ne entreprise bi neex na ko Mati ngi dafa bokk ci liggéeykat yi nga xam ne ci teer bi dañ leen di noter régulièrement SETER buy noté ay liggéeykatam da leen di noté sur cinq ñun bi ñu nekkoon école dañu doon noté sur vingt wala sur dix bu fekkee euh, école élémentaire la école primaire ñoom ñu ngi leen di notee sur cinq Mati Ñing mii toog fii di assistante de direction ci TER bi ci SETER musul am note bu gën a tuuti quatre sur cinq waxuma 4 sur 10 de waxuma 4 sur 20 4 sur cinq note bu mujj bi mu am 4 virgule bu dee ay kilifawam ay supérieur ñoo ko noté 4 virgule 33 sur 5 kon ça veut dire que son travail est plus que satisfaisant kon bu dee ci liggéeyam rekk lañ koy juger Mati ngi mii toog fii dafa war a am CDI contrat à durée indéterminée ginnaaw ñaari CDD mu toog fan yële passé mu dégg ay bruit de couloir yu egsi ba ci moom ñu ne ko yow du ñu ren du am na loo xam ne mu ngi xeeñ am na loo xam ne mu ngi raam te lii raam mooy fas yéene wu ñu renouveler sa contrat jox la yi ndax lan. parce que Mati Ñing mii toog fii jigéen bu mën góor la elle est de personnel dégg naa ñu naan waaw yow boo amee contrat à durée à durée déterminée sa place wóoragul sa dara wóoragul ah looy waane ah di dugg ci ay défendre say collègues mais ñun ban Sénégal la ñu a tabax ñun est-ce que ay nit lañu ñun ay nit lañu. parce que danga am contrat à durée déterminée da nga war a ni muut nangu lu nekk waroo am yéene mais servir tes collègues dégg nañ lu nekk depuis plusieurs heures Mati muusul ma Mati daf na erreur Mati dafa waroon xaar ba am séeréer yi pour dugg ci syndicat mais pour nekk délégué mais il faut féliciter Mati. Sénégal dafa soxla ay dizaines de mati ay milliers de mati ay millions de mati parce que bu boobaa la situation des travailleurs dina gën a ñoŋ à commencer par la situation des travailleurs de la presse li ñu gën a am ay mati la situation des femmes gën a amélioré wu yàggul trop j'ai interpellé le gouvernement ne ko mais yéen gouvernement du Sénégal dégg naa jigéen bu ëmbee bu amee prématuré maanaam mu wasin ci période bi nga xam ne c'est avant accouchement bu wasinee prématuré bu am 7 mois ñàkk na la période avant accouchement normal ci congé de maternité yi ndax lan mais parti boobu dañ ko war a yokk war ñu ko supprimer parce que déjà jigéen bu wasinee doom bu normal mais yore doom dafa diis rawatina nga yore prématuré ak toppatoo prématuré nu mu waree ñu ne ñàkk nga cette partie là parce que danga nga accouché avant période bi nga waroon dem congé de maternité donc on a besoin de femmes dans les entreprises on a besoin de femmes yuy défendre ak ak yelleefu liggéeykat yëpp ci biir ak ak yelleefu liggéeykat yi yëpp ak ak yelleefu jigéen ñi donc Maty elle doit être encouragée bu ñu ko félicité wul sargal ko takkal ko médaille waruñu wax ne dafa def erreur elle n'a fait aucune erreur les travailleurs yi am CDD ils ont le droit d'être représentés et les travailleurs qui des CDD ñi leen gën a mun représenter njort nañ ne bokk na ci des travailleurs yu am CDD comme ñoom waaw donc elle est à féliciter et Maty nous te félicitons nous sommes fiers de toi nous sommes fiers de constater que au Sénégal il y des femmes comme yow ay jigéen yu mën góor ay jigéen yuy défendre les intérêts de tous les travailleurs yemul rek ci nekk délégué elle est la coordonnatrice de tous les délégués du train express régional délégué jigéen comme délégué góor est-ce que am na beneen délégué jigéen sax. si y di di ci ñëwaat donc il faut féliciter Mati ñu ne kon kii lan moo tax bëgguñu renouveler jox ko contrat à durée indéterminée mais c'est parce qu'elle est déléguée du personnel c'est parce que aussi. Elle coordonne, elle est à la tête du collège des délégués des travailleurs du terre. Et délégués yooyu dafa am loo xam ne dañ ko yàgg kaas yenn yi ñu am si ndam yeneen yi amuñu si ndam Patrick Transé c'est ça. Patrick Transé muy tubaab français bi nga xam ne moo jiite SETER ba léegi il a une dent contre les délégués maanaam dafa guuxal. liggéeykatu TER bi dafa guuxal ñi nga xam ne ñoom ñooy délégué yi Patrick ñoom ñëw nañu fi benn bés ne waaw liggéeykat yi nga xam ne du ñu lekk ci restaurant TER bi ñooñu dañ leen di jox prime de quarante mille francs prime de nourriture ñu xëy benn bés ne dañuy dañuy supprimer prime boobu délégué yi ne du fi amee tey du fi amee ëllëg comme liggéeykat yooyu seen heure de travail du tombe ak heure ouverture restaurant li ñu waroon lekk ci restaurant bi nañ leen ko jàppale ci prime ba léegi dafa mere délégué yi ci loolu te kan moo jiite délégué yi Mati ñu ngi muy toog fii c'est pourquoi nous interpellons les femmes du Sénégal parce que lii nekkul xeexu Mati ñing neex nekkul xeexu FRAPP nekkul xeexu député Guy Marius Sagna xeexu jigéen yépp la te kii nag deful simulation ëmb deful simulation ëmb de kii du ñi nga xam ne depuis trente mois nee dañ dañoo ëmb donc jigéen yi amuñu benn prétexte comment est-ce jeter à la rue ginnaaw biñ ko ngaccee minimum ni orange jëfandikoo ko comme mouchoir naka lañ ko mën a sànnee comme sa alors que c'est une travailleuse co c'est une travailleuse consciencieuse liggéeykat buy def liggéey bu mucc ayib la naka lañ ko mën a jeter à la rue comme sa dindi ndox bi yépp sànni limon bi sànni orange bi ñaari at de bons et de bons et loyaux service ñu koy jëfandikoo comme sémmiñ mu leen di goral di leen di goral après ñu ne jàpp sémmiñ bi bëgg ko sànni est-ce que dañ ko war a seetaan alors que le poste n'est pas supprimé alors que bu dee compétence ak expérience am na ko kon yeneen motivation la le débat sur SETER am na droit renouveler ou pas mais am na droit bañ ko renouveler. mais est-ce que war nañ nangu Sénégal ñuy def nii liggéeykat di làqatu ci ginnaaw yoon di def yoo xam ne di régler ay compte lii mooy wax ci mais wax ji mooy xam nañ ne délégués yi du ñu yem rek ci xeex ay prime de nourriture dinañ xeex lemen xam nañ ne ni suñu maam tirailleurs yi doon wax ñun ñiy xeexal pour France guerre mondiale di nit yu ñuul dañoo bëgg ñu traité ñu comme nit yu weex yi xeexal France guerre mondiale dégg ngeen gis ngeen communiqué bi waxoon ne SETER SNCF moo ko moom mais boo xoolee liggéeykat tubaab yi nekk France di liggéey SNCF ak donc liggéeykatu SNCF yi nekk fii Sénégal mais liggéeykat euh, tubaab yi nekk fële France dañuy am ay primes yoo xam ne ñoom amuñu ko. ñu ba koy jege ñoom est-ce amuñu benn wala ñaar wala ñetti prime liggéeykat tubaab yi nekk SNCF am nañ dix prime ñoom xam nañ ne ñii du ñu yem ci xeex la suppression de la prime de nourriture dinañ dem ba ne eh, suñu maam nit yu ñuul yu ñu boom caaroy 44 ndax ñu respecter seen droit ndax ñu yemale leen ak seeni mbokk tubaab yi xeex guerre mondiale ñun. nit yu ñuul yiy liggéey ci biir terre bi ci SETER ñun seeni sët lañu et que dañuy continuer xeex pour ni ñuy respecter liggéeykatu SNCF bu weex tàll ni tubaab noonu la ñu war a respecter liggéeykatu euh, SNCF bu ñuul ni doomu Afrique loolu rek la décapiter le collège de délégués commencé ko ci moom. donc ça veut tey jii nii boo nekkee délégué aussi facilement ñu sànni la comme ça nga nekk jigéen rawatina jigéen bu wërul cinq mois de grossesse rawatina tout say chef nee nañ yow liggéeykat gënu la rax si dolli ay chef ay ayubés ci ginnaaw ne ko Mati est-ce que bëgg nga continuer waat ak SETER mu ne leen man liggéey rek laa bëgg donc ça veut que ces supérieurs soxla nañ ko def nañ ko sax la proposition pour que mu nangu contrat bi bu jeexee ñu reconduire ko li xew ci diggante bi mooy tubaab yi tubaab yi nekk SETER di dundee SETER li ëpp ci xaalisu TER bi ñoom ñoo koy dundee ci ay payoor yoo xam ne ci ay indemnité yoo xam ne ci ay prime yoo xam ne rong ñun sénégalais yiy jëfandikoo teer bi di siim ñoom seen cere ñoom tubaab yi nekk ci bopp terre bi yi nekk ci bopp SETER ñu xam ne ñii duñu toog seetaan loolu ñoom lañu ñu bëgg a galgal li ko dal nag dal na ñeneen avant moom ay góor ak ay jigéen mais ñu ne mënatul continuer loolu lañu bañ mu am lii ñuy def Mati Ñing mu ngi am ay fan ginnaaw bi ñu génnee ci weeru mars bés yëpp nag bésu jigéen la journée des femmes 365 jours cent sur 365 la waaye weeru mars ci lañ leen gën a fullaal gën a faydal leen tey mooy le 11. ah tey di la 11 avril fukki fan ak benn ginnaaw weeru mars nga ñuy toroxal jigéen jigéen bu wërul et donte wërul muy def liggéeyam consciencieusement toutes les femmes sénégalaises sont interpellées toutes les femmes syndicalistes sont interpellées toutes les femmes l'association des femmes juristes ce n'est pas un problème de droit ça Ce n'est pas seulement un problème de que dit en fait le code du travail sur après deux contrats à durée en fait déterminée. Ça va plus loin que ça. rawatina ñu ne le thème de la journée internationale des femmes bu 8 mars 2023 bi c'est pour un monde digital inclusif innovation et technologie pour l'égalité des sexes TER nekk lu bees ci wàllu innovation ci wàllu technologie journée internationale des femmes bii 2023 mu ne pour un monde digital inclusif innovation et technologie pour l'égalité des sexes kon lii waroon na am fu nekk fudul ci terre bi muy lu bees muy technologie bu bees muy innovation bu bees ay jigéen am fit am courage ñu bàyyi loolu yeneen contrat ñii dañ leen loolu yeneen contrat ñu ñëw liggéey ci terre bi bi ñu ñëwee ci terre bi lañ leen ne waa léegi dangeen ngeen di am un contrat à durée déterminée bu 6 mois waaye sax un mois yi sax essai la bi ñu bàyyi loo seen yeneen contrat yi ba pare la ñu ñëw ne ah waaye nag bàyyi ngeen seen liggéey waaye nag ñu ngi leen di xamal ne premier mois bi ese la ñu enduré loolu yépp non lii euh, mënuñu ko nangu munuñu ko seetaan lii moo tax ñun FRAPP. ñu ne dañuy taxaw ci wetu suñu jigéen ci wetu suñu sœur Mati Ñing madame Fall ngir taxawu ko parce que lii du dëgg du yoon donc euh, lii moo taxoon ñu alerte lii moo tax ñu ne tey mënuñu ñàkk jàkkaarlook euh, yéen pour dénoncer li nga xam ne moom moo am terre moo am ci SETER bi commencé wuñ ko ci moom te boo moytul dinañ ko continuer du sax boo moytul dinañ ko continuer dina ñëw ci dernier développement bi Aliou Gérard Sànq bi mu leen di wax ah am nañu retard ne leen am na yeneen information yu bees waaw ci suba si am na yeneen information yu bees moom dina ci dellu donc lii mooy suñu tànk fii di interpeller les centrales syndicales di interpeller ñii di xeex ak ak yelef dañoo ne bu ngaay neexee mexee tax bu ngaay neexee mexee tax bu teer neexee ñii ñoo tax bu teer neexee ñii ñoo tax bu tubaab yi di noos ci xaalisu teer bi ñii ñoo tax donc bu ngay neexee mexee tax mais mënuñu seetaan mexe ñu koy toroxal rawatina ñun ñi nga xam ne nous sommes des compatriotes de Matigning train express régional ah non no non violation express des droits de travailleurs moo fa am train express régional piétinement des droits de la femme express moo am ci TER bi moo am ci SETER bi te loolu duñ ko seetaan waruñu ko seetaan respecter les droits de la femme c'est pas d'utiliser les femmes comme des machins comme des objets c'est fekk femmes yi nga xam ne ay jàmbaar lañu ñu ngi def lu ñu mën ak lu ñu mënul pour dundal seen bopp yor seen kër di def liggéey bu am solo pour la société nga jàppale leen nga aar leen et nous interpellons le gouvernement du Sénégal nous interpellons le gouvernement du Sénégal